mesdames et messieurs bonjour assalamu di am suis lol di journal de l'immobilier bu je bi cabinet de conseil MTM Immobilier di présenter. À la une du journal nous sommes allés rencontrer M. Khadim Gueye qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Yambol. Donc écoutons M. Gueye qui va nous expliquer sur le rôle des sous-préfets dans le domaine de l'immobilier. voilà donc man maa ngi Khadim gay maay sous-préfet bu arrondissement de Yeumbeul donc ñu ngi ma affecté fii ci Yeumbeul depuis juin 2021 ñu créé le nouveau département de Kermessa Massar divisé ko en trois arrondissements muy l'arrondissement de Jaxaay l'arrondissement de Malika l'arrondissement de Yeumbeul man nag la ñu indi fii my suf consumption of your human. wàllu suuf eh, buñ ci bëggee eh, wax bëgg aussi xam ban taxawaay la ci autorité administrative yi am mën nañ ko jàngat ci ñaar ba ñetti fànn ñu eh, bu bi muy suuf indi indi mooy yenn saa yi euh, nit yi dinañ am seen ay projet de yooyu euh, ñun en tant que tutelle administratif yoon may nañu à travers le code mën a wàcc xool est-ce que jaar na yoon wala jaar na yoon yoon aussi may nañu ñu mën a demander lépp luy papier jëm ci lotissement boobu xam est-ce que tegu na fi mu war a tegu tegu fi mu war a que mu nekk un lotissement boo xam ne un lotissement boo xam ne un promoteur privé moo koy def wala mu nekk un boo xam ne aussi des fois soit collectivité territoriale yi moo koy def wala même yeneen service yu état yi ñu demal yooyu donc ci collectivité territoriale gën a ñëw après bu ñuy évoqué ñu naan approbation acte collectivité territoriale ak suuf mais ci fànn bu njëkk boobu dèjà rek ñun suñu rôle dañu war a saytu ci lotissement fi mu waroon jaar jaar. mais aussi est-ce que ñu ko war defee ñu ngi koy defee noonu moo tax texte bi may yenn saa yi ñu mën a def ay visite de lotissement wàcc sur le terrain xool avec les services techniques est-ce que équipement yi ñu waroon bàyyi bàyyi nañ ko est-ce que mbedd yi ni mu waroon toll toll na les yenn saa yi services techniques yi ñoom kese mën nañ ko def ñu mel ni urbanisme ñu mel mais ñun aussi yenn saa yi mën nañoo ànd ak ñoom dem sur le terrain mooy suuf aussi day indi stabilité sociale. mooy lan tey jii euh, nit ñi ñu bari seen préoccupation mooy am kër kër goo xam ne yaa ko moom sa bopp nga dëkk ci yenn saa yi mu nekk kër goo xam ne aussi yaa koy tabaxal sa bopp te bu ñu nee tabax aussi dafa am norme yoo xam ne moom la ñu war a tabaxee nit ki doo ñëw rek mu la neex nga tabaxee mu la neex nga dëkkee donc ci loolu nag mooy tax yenn saa yi état bi muy demande nit ki boo demee boo ko tabax doo wut leen naan de construire autorisation de construire boobu procédure bu muy jaar ñu tàmbali ci dépôt bi soit au niveau des municipalités wala des services de l'urbanisme ba ci sûr qu'il mu war a des services qui nga xam ne yëpp dañ ci war a joxe seen avis muy services de domaine cadastre service d'hygiène ainsi de suite pour nous xool est-ce que yow mii li nga war a et dëppoo na ak li yoon maye est-ce que suuf si yaa ko soit bail la soit attribution soit titre foncier est-ce que limite yi nga xam ne moom lañ la jox exactement moom nga a respecté est-ce le plan de l'hygiène ni nga xam ne noonu lañ yoon mayee respecté nga ko foos yi fii nga koy def nii ngay def donc yooyu yëpp service dañ koy saytu pour maire yi nga xam ne ñoom lañ teg ci kaw bokk commune yi ndax ñoom la yoon jox ñu sañ-sañ délivrer autorisation de construire maintenant ñoom buñ defee loolu pare bu fekkee wax dëgg yàlla gisuñu ci benn wàcc yoon dañ koy jébbal maire yooyu jël arrêté d' autorisation de construire mais nag jëlee arrêté autorisation de construire nag ba pare pour que nit ki mën a dëggal li ko maire bi jox pour que mën ko exécuter carrément il va falloir que ko fii à notre niveau ñu def li ñuy wax approbation mooy dañuy approuvé arrêté maire boobu nga xam ne jël na ko pour jox nit ki autorisation de construire. beneen fànn bi nga xam ne aussi dafa am solo trop ci liggéey bi nga xam ni autorité administrative mooy fànn dafa am collectivités territoriales euh, am na ay sottee euh, euh, nu mu tëralee la commune ak autorité administrative yi nga xam ñoo fi dogal état ñoom ñooy représenté état ci wotu collectivité territoriale léegi ci liggéey bi daf ci am fànn këyit yoo xam ne acte yoo xam ne bu ko collectivité waa jëlee balaa ñu koy mën a exécuter balaa ñu koy mën a jëmmal il faut que représentant ko ba def ci signature am ne ah, lii kat gis nañ ne amul benn problème mën nañ ko exécuter mooy li ñuy wax le caractère exécutoire caractère exécutoire boobu nag autorité administrative yi moo koy jox acte bi peut-être jarul ci.

ba waxtaan ba gis yow mii kat lii nga dem ànd ci suuf mën nañ ko koo jox ñoom dañuy def seen liñ seen délibération voté ko ci ñi ëpp d' accord ñu xam ne nangu nañ ko jox la tant d' hectare de suuf bu ñu defee loolu ba pare nag acte bi nga xam ni moo koy jëmmal maire da koy signé bu ko signé ba pare nag pour yow nga mën a vraiment dem nag jublu ci li nga xam ne moom la la yoon may ci wàllu suuf si nga mën koo exploité yooyu noonu il faut que mu indi bi ci préfet bi wala sous-préfet bu njëkk quel que soit nombre d'hectares yi nga xam ni noonu la tollu woon sous-préfet bi nga xam ne moo nekk foofu wala préfet bi nekk ci commune boobu rek bu ñu ko yóbbulee moom bu vérifié bu seen dara jaar jaar dara wàccu ci yoon moom day def lu ñu naan approbation bu ko approuvé yow di mën a ñëw commencé def li nga bëgg def ci suuf soosu mais nag comme ñoo ko doon sànq doo loué doo national dañ la may rek pour que nga ko exploiter mën ko jariñoo waaye nag waxuñu ko nga jaay ko waxuñu la pour mais jamono yi ci gannaaw dañu changé texte bi nga xam ni moo doon tënk nan la ñuy joxee suuf ak nan la suuf ginnaaw ay quelques jafe-jafe yu ñu seetlu woon ñu ne léegi bu fekkee ni yow da bëgg suuf. tant que weesuwul dix hectares sous-préfet bi nga nekkal mën na la ko signer bu weesoo dix hectares jëm ko ay cinquante hectares préfet bi nga xam ni moom moo kilifawu sous-préfet bi ci moom lañ ko yóbbu mu approuvé ko même bu fekkee ni commune bi sous-préfet bi mooy représenté état foofu bu fekkee nag dafa jéggi lool bu ëpp ko gouverneur bi moom mooy approuvé superficie bi nga xam ne jox par bu fekkee nit ki dafa ñu bëgg cent ci gouverneur lañ koy yóbbu mën na approuvé ko mais nag da koy transmettre secrétariat général du gouvernement pour que ñu mën ko publier def ko mooy pour wàññi coow yi nga xam ne doomu judd nit ki naan jox nañ kii population naan yëguñu ko yëgul woon ñu jox nañ ko yëgul woon jox nañ ci tant de kii fi ñu ko jox moomu ko suñuy maam ak moom la ainsi de yooyu yëpp moo tax kilifa yi modifier texte bi dugal ci fànn yooyu nga xam dañuy gën a sécuriser nit ñi nga xam ne dañ leen jox suuf pour ñu ko jëriñoo maintenant moom que amu yow nit ki kayit bi la ko exécuter. maanaam mënoo jëriñoo suuf si maintenant nag dafa am aussi délai boo xam ne moom lañu ñu may autorité administrative bi wala représentant état bi mu ab ko bu fekkee ni moom xool na xool gisu ci benn jafe-jafe normalement warul weesu weer bu ko mu approuvé ko bu ko weesoo rek day am lu ñu naan approbation tacite mooy nit ki sañ la dem jëfandikoo fa parce que administration waxul dara ci acte bi nga xam ne collectivité territoriale bi jébbaloon na ay mbir yoo ci wàcc wala mu wàcc procédure bi moom la ko jaar moom représentant état bi sañ na rejeté délibération boobu mooy la da koy delloowaat commune bi di ne lii ngeen dogaloon mën a jàll ñoom nag ak mën nañoo xool nga xam dañ ci indi ay soppite bu ko neexee moom représentant état bi mu ne leen wax ni lii ak lii ak lii moom ngeen matalu moo tax ñu mënu jàll ñoom aussi ci seen biir en tant que territoriale ak seen i service mën nañu xool aussi lan moo ci manqué ñu defaraat ko yóbbulaat ko ko defaat une nouvelle délibération jébbalaat ko représentant état bi bu xoolee bu lépp jaare yoon mu daal di Merci beaucoup, M. Hadim Gueye, pour ces éclaircissements. Maintenant, partons voir M. Momorta Alambay, qui est le directeur général de MTM Immobilier. Donc, écoutons cet expert qui va nous expliquer le pourquoi de l'augmentation des prix dans le domaine de l'immobilier. Partons maintenant. asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi wuyu ci Momar Talla mbay di manager bu MTM immobilier tey li ñuy waxtaanee c'est simple du dara du la spéculation dans le domaine du foncier maanaam le boom immobilier maanaam prix ni mu flambé au Sénégal tey bokk na ci cause yi nga xam ne euh, dañ koy indi tey bokk na ci mooy les taxes les taxes yi nga xam ne ñu ngi koy appliquer ci jaaykat yi jaaykat yi tey monsieur mbay bu amee terrain euh, war koo jaayee 10 millions. 10 millions yoy amna na taxe yu mu ci génne yu ci melni ni taxe état yu ci melni ni taxe yu muy jox courtier et cetera loolu day flambé les prix bokk na ci cause yi nga xamné ne moo tax prix di exploser sur le plan immobilier euh ben bi moy ci si spéculation yi mën nañ ci lim li nga xam la majoration te jii pour euh, kamale la majoration dangay gis ñu ci bëri tay bu ñuy jaay souf fi muy jaar voie yi muy jaar day bari monsieur mbay day jaay souf dana jaar ci agence X jaar ci agence Y ku ci nekk da nga ciy appliquer benn marge bay xam ne yaa koy moom donc da ngay gis foofu ne nit ki nga xam ne moo doon jaay terrain dina retrouver wu terrain bu doon jar trois mille dina dem ba 1 million bu moytuwul parce que liñ ko majorer moo tax donc mooy point essentiel yi nga xam ne mooy ñëw mais duñu wax dem lu dul dañ ciy dolli li nga xam ne euh, suuf moo doon lee xam ne bu ñëwee sur le plan foncier donc jëndum jaayam suuf dañuy dem ci àll ba te l'exode rural dafa am phénomène bu mu fi bàyyi moy tay jii képp ki nga xam ne doon ko baykat yaakaaroon sa suuf sa doom bëgg a tukki wala nga am ay frais yu war a def maanaam sa kaw suuf nga ko yaakaaree maanaam on règle les problèmes yi nga xam ne dañoo yaakaar ne problème yëpp mën nañ ko régler ci suuf si nga xam ne yor nañ ko muy benn hectare ba nga xam ne mi ngi jar à ah, 18 millions ñu yaakaar ne war nañ ko mën a régler ci benn 50 millions ba nga xam ne war nañ ci mën tabax wala boog war nañ ci mën a yóbbu suñuy doom donc loolu dafay nit ki bëgg ci rek problème day créer ce qu'on appelle le boom le milieu foncier donc bu ñu waxee du ñu yem ci suuf également location c'est la même chose da ngay gis ko tabax banques. les banques banques yi ko fi sank suñu jël waxtaan yi day ñëw mu yaakaar ko ci mën a da ngay gis ne spéculation dafay ci li wax immobilier également ci location loolu moo nekkoon waxtaan bi nga xam monsieur mbay MTM immobilier leen ko indil wax leen ci les spéculations la spéculation et le boom immobilier salaamaaleykum naa leen merci beaucoup M. Momar Mbaye pour ces éclaircissements donc nous ko M. dégg nañ Khadim Gueye le sous-préfet de Yeumbeul de terrain entre particulier et particulier réunis. na de bien immobilier da ngay rapproché service de l'État ou wala cabinet de conseil expert en immobilier Nous accompagner la le pourquoi de l'augmentation des prix dans le domaine de l'immobilier donc ñoo de quant aux autres je ngi rendez-vous est une actualité dans le domaine de l'immobilier merci beaucoup d'avoir choisi MTM Immobilier